sama gars yi namoon ni ma namee woon kii ci ginnaaw ah, le président Ousmane Sonko président kuy daagu daal na nga daagu fan la nobe mais xam mais xam naa ni vraiment di am mbégte bu rëy di ñëw fii ànd ak le président Ousmane Sonko ak tous les leaders li nga xam ni ñoo ngi fi ngeen yàgg ñu xam yàgg ñu xàmme lenn képp soxal ñu muy Sénégal jëm kanam Sénégal jëm kanam boobu moom le président Ousmane Sonko tàmbali ak le président de la République tàmbali boo gis day tollu jamono dañuy soxla askan wi askan wi jóg boot mbir mi def ko seen mbir def ko seen yitte yitte woo ko ndaxte tàmbali boobu mën a sore mën a jëm fi nga xam ni moom la askan bi bëgg te li ngeen bëgg Sénégal vision wax na ko keroog kenn mënul bañ ci Sénégal nu jëm kanam dafa am lu xew le mars mooy sénégalais yi dans leur écrasante majorité danoo jóg jox le président de la république Bassirou Diomaye Faye une majorité bi nga xam ni kenn table wu ko le premier ministre le président Ousmane Sonko di dérouler un programme bi nga xam ni jéego yi ku ne yaa ngi koy gis mais nag lépp loo gis askan wi bu leen lu nit tàmbali ñoom ñoo ko war a mottali kon mottali bi kañ la mottali bi kañ mottali bi kañ la mottali bi kañ xam ngeen li leen war xam ngeen li leen war ñaata député ñaata député madame Aïda Mbodj 150 la laaj vraiment di leen gërëm di leen di wax ñu mobiliser wu pour une victoire éclatante au soir du 17 novembre bu ko defee ñu jël majorité bi nga xam ni kenn du ko natable teg ci loxo le président Ousmane Sonko je vous merci beaucoup merci beaucoup Déthié Fall sama tata Aïda moom mi nga xam ne on a partagé des de grenades lacrymogènes à Ziguinchor